fas yéene mottali rek euh, kàddu yi nga xam ne rot na fi ci suñuy nattaango ci coalition bi daanaka mu xaw a tënk lépp li doore sama wax mooy du ma dellu si sax ci évaluation journée 17 bi waaye naa ci wax as tuut mooy ku bëgg a tënk journée 17 juin bi dafa amoon ñaari kuréel yu jàkkaarloo benn kuréel bi ne dama am lu ma naqari ci réew mi te ndey charte réew mi may na ma suma amee lu ma naqari ma ñaxtu ko ci jàmm ak ci tey daal tànn ab bërëb boo xam ne man ak ñi ànd ak man ñëpp dinañ fa daje daa wax àdduna yëpp li ñu naqari bu loolu jeexee ñu tasaaroo ñibbi ci jàmm geneen kuréel gi ne loolu du fi amee te tegu ko ci benn yoon du ci ndeyu charte ndeyu réew mi euh, du ci loi réew mi du ci règlement réew mi ñaar yooyu ñoo taxawoon dinaa manifester doo manifester ma laaj nag waa àdduna laaj waa senegal ndax keroog le 17 manifester nañu ci réew mi wala manifester wuñ bu ñu bëggee natt. ndax ñun liñ loon suñu jubluwaay am nañ koom déet foofu lañ koy nattee am nañu lu raw lu ñu bëggoon ci manifester ndax suñu bàyyi woon place de la nation la daje dafay daje ci nit ak nu mu takku takku takku foofu la yem te coow du am ci réew mi pëne du ci bënn weñ du ci dee waxuma laa bakkan di ci rot ndax def nañ ko ay fan ci gannaaw ci anam ni bu gën a rafetee te dara amul ci réew mi waaye fitne gi Macky Sall yore réew mi ak teg bëgg koo teg ñëpp moo jur lu xew keroog mu am luñ ci mën a am ci satisfaction mooy am nañ ci lu kawe suñu jot ndax waxuma la place de la nation waaye ndakaaru yëpp manifester nañ ci ba nit ñi gis ko amul quartier ndakaaru daanaka bu ñu manifesté wul banlieue Ndakaaru ñu manifester fa ba Casamance ñu manifester fa loolu moo ëpp fuuf la ñu bëggoon ñun suñ ñu bàyyi woon ñu daje manifester te li mandargaal ni manifestation ba réussir na mooy man bi ma xoolee presse internationale du presse anglophone du presse hispan hispanique presse arabophone presse africaine léegi maa ngi gis ki nekkoon fii ministre de. des affaires étrangères Mankeur Ndiaye naan le monde à les yeux rivés sur le Sénégal loolu lan moo ko andi bésu di set ba la kon cuune gi mu cuune moom ak ñàkk mën a muñ contradiction ak opposition moo ñu andi lii ñun tey àdduna yëpp a ngi xool Sénégal la preuve gëjoon nañu def conférence de presse presse internationale bi yëpp taxaw ñi ngi nii kon ñun mën nga xëy nag ñu duma la ba toog sa kaw nga ne wàcc ma daan naa la mooy li mu def xëy daal di fay quelque titre de journaux ñuy def apologie du crime et de l'assassinat d'État loolu Sénégal rek la am da ngay rus sax adduna bi yëpp couvrir nañu waaye dangay ngay rus niñ ko bindee Sénégal mooy bravo Macky assassiné c'est très bon loolu mooy l'État est resté maître du jeu waaye ñi xam ñi gis ñëpp ñi fi teew ñëpp xam ne xam nañ ni keroog Macky Sall dafa ñàkk bés ba ñëpp xam nañ ko benn Bokk Yaakaar moom tuddatuma ko man benn Bokk Mën a Daw laa leen tuddee léegi xaju balcon mbow mbow mbow mbow waaye bu action jotee kenn doo ko ci gis bu tàmpet bi weesoo nag ñu génnaat nag taxaw force restera à la yow foo nekkoon bi mbir yi di mun a woon génn jàmmaarloog ñuy manifester du digg nañ ko diggewaat ko parce que sénégalais yi gëmuñu leen amul benn nit bu paree pour xeex ngir Benno Bokk Yaakaar xaalis bu bëri lañuy jël jox ko gaay bu ñu jëlee seen xaalis bu pare dem toog seen kër wala ñëw ànd ak ñun manifester parce que gëmuñu leen xam nañ ni yoruñu réew mi ci yorin gu rafet xam nañ ni bëgguñu réew mi kon kenn ku ne mën nga nax sa bopp. waaye Macky Sall xam na ni keroog échec bu la am donte nag ci li mu jàppoon ni mooy stratégie mooy teel xëy yenn leaders yi nga dem bloqué seen kër loolu fan la am ban loi moo ko ko may ban ordonnance la juge jël pour mettre ñu résistance surveillée ba Macky Sall am sañ-sañu ñëw ne day bloqué suñuy kër àdduna yëpp di ko seetaan kenn du wax nag Sénégal mooy réew moo xam ne balaa wax ji di jolli rek. mooy Macky Sall wala nguur gu fi mu sa nekk dem na bay waaj a waaye fi léegi mi ngi yor yaram di dóor doo dégg nit ñi wax wala bu ñuy wax sax dañuy essayer boole ñëpp nag ne ñëpp a tooñ moom Macky Sall interview bu mu def ci média étranger démb nee na guerre bi am diggante Ukraine ak Russie am na ku tooñ ak ku ñu tooñ loolu la wax yaa a un agressé et un donte ñemewul tudd kan mooy agresseur bi te ñëpp xam nañ fu mu ko jublu waaye fu ñaari nit di xeex am na ku tooñ nañu waxante dëgg nañu bàyyi wax yi fu ñaari nit tongoo am na ku tooñ munoo ne ñaari nit tongoo nañu ñemewoo joxoñ ki tooñ waaye foog nga maasaale ko dajale ñëpp ne ñoom ñëpp la damay def élection nga ne doo dem élection te tegoo ko ci dara 2012 ba léegi Macky nekk ci loolu démb élection am na France Macron amul majorité est-ce que foog ngeen ni su doon France Macron may nañ ko mu ne Jean-Luc Mélenchon ak Marine Le Pen ak keneen ak keneen duñ dem élection résultat boobu dina am est-ce que loolu nit mën na koo xalaat sax ci réew boo xam ne démocratie am na fa élection bu ne rek dinañu tànn ñan ñoo dul dem ci ay ay ay leader d'opposition te mosul am Sénégal bi senegal di am ba léegi ñépp a koy gis nañ ko wax moo gën suñ ko mënul wax nañu maadu ci mbir mi fii benn tooñkat moo fi am benn dóorekat moo fi am benn reykatu nit moo fi am mi ngi tudd yi sal loolu ñëpp xam nañ ko senegal adduna bi yëpp léegi xam na ko ñun duñu nangu de te nañuy ormalante parce que ñun caaxaanuñu ay responsable lañu fooy foowuñu foowloowuñu li ñu ti lu am solo la mooy jëlaat suñu réew téye ko te defar ko loolu du caaxaan bu ñu foogee ñun dañuy caaxaan saa yu neexee ñu ne nit ñi génn leen dem leen def caaxaanuñu wallaahi caaxaan li ñu nekk nii dañoo gëm ni dëgg la bis bu ñu demee ba gëmatuñu ni ñu ngi ci dëgg boobu lañ koy bàyyi ci bés ba boobu lañ koy bàyyi ci bës ba ba tax ñun jàpp nañ ni lañu bëggoon am nañ ko ba am lu ko ëpp waaye am na lu ñuul ci ñuul ci soow mi mooy bi ñu demee ba ngoon ngoon sax sori na booru trois heures laa woo leader yi nekkoon fii ne leen comme moom foogul woon ni sénégalais dinañu génn parce que dafa jàpp ni ay affaire dinaa manifester du ma manifester wala suñu list nañ ko delloo si du jaral sénégalais yi génn pour xeex stratégie am yëpp loolu la woon comme foogu doon loolu te sénégalais yi mujj nañoo génn massivement génn nañu ak doole xol bi bi xat na xataay boo xam ne foo jaar mu essayé fayu mooy foo jaar dina essayé rotal bakkan waaye foo jaar dina essayé teg ay loxo loxo ci ay leader ci laa woo yenn leaders yi ne leen su ma sañoon su dee yéen a ngi siège u bu fa kenn génn tëj leen siège bi ngeen toog parce que foo jaar dina essayer teg loxo ci leader pour am trophée de guerre parce que xam na ni ñàkk na bés bi ba noppi malheureusement am na ñu ko jotuloon dégg te ñooñu la mujj teg loxo mu am ci sax ay cas extrême ndax ku mel ni gii Marius Sagna xam nga defetu Ziguinchor nag dafa métti ndax trajet bi waa Ziguinchor arrêté woon ne fii la ñuy dox mu mat 5 kilomètres dox nañ ko de Lindiane ba egg place Jean Paul II ba yëg ci eh, ci ci ci rond point bi loolu moo leen métti dégg naa préfet mu dafa leen ne ça y est sama carrière jeex na commissaire bi nga xam ne mi ngi doog a toog y un mois bi ñu ko installé maa nga fa woon moom it jàpp na ni engagé na euh, carrière am à Ziguinchor par une défaite ñu nekkoon faw ñu fayu foofu lañ toll ci réew mi un état boo xam ne vendetta vengeance koo xam ne manifester nga ba manifestation bi jeex àjjuma kenn jàppul nga ñibbi fanaan sa kër samedi nga xëy di wër commissariat di xool xale yi ñu jàpp ak di leen yóbbul lu ñu ndékkee ñëw ba ci commissariat ñu jàpp la ne la tu en état en état d'arrestation pour participation ay manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public nga xam ne ordre bu ñu joxe la ngir mer gi ñu mer ci défaite bi ñu am loolay kaaw dig ci Fall loolay kaaw Mame Diarra Fam loolay kaaw Ahmed Aydara waaye loolu mooy kaaw ndaw yu ñu jàpp yépp te daañ ci dellusi si ñu ne nag loolu lu ñu bëggoon tënk la tuuti ci évaluation bi mën nañu continuer di nax seen bopp am ay nit yu leen di bindal saa yu nekk ñu génne heureusement que dañoo nekk jamono joo xam ne gis nga presse léegi kenn moomatu ko li mun a jàll ci Facebook par jour rek moo ëpp foofu volume ak suivi que liy génn ci presse moo tax dina yàq xaalis bu bëri te yéen ñii journalistes yu ndaw yi du ngeen gis dara patron de presse yi la jox ñu dem jëndi seen i kër di bind lu leen neex te yéenay nekk ci terrain bi nag saan ñu leen di gazé ak di leen menacé corruption bi nekk ci réew mi amul secteur bu mu bàyyi waaye loolu ndax sa bopp loo xam ne ñi ngi ko doon déroulé en temps réel àdduna bi yëpp di ko gis <laughs> nga xëy di bind say titre na continuer ci loolu waaye ñun fi teg suñu tànk duñ ci teggi dara moo tax keroog nee nañ leen c'était le premier acte dañuy wéyal liggéey bi moo tax dinañu développer plan d'action boo xam ne dina am ñaar wala ñett ci ay actions yu ñuy wax tey la ca des au fur et mesure ba ci njëkk mooy jàpp nañu organiser une très grande manifestation le 29 juin incha allah ñu bëri ci militants yeeg sympathisants yi yàkkamti woon nañ ba bëgg ñu defaat ko ci nu ma gën a gaawee ñii àjjuma bii lañu bëggoon ñu def ko bi ñu waxtaanee la ci génn mooy comme réew mi am na lu fi war a xew du vingt 24 au 27 mooy centenaire u Hajj Malick Sy bi nga xam ne dañ koy célébrer ñu ne pour ormal loolu ci diggante boobu du ñu organiser ndax tey la lundi boo déposé woon tey lundi pour nga am trois jours francs yi mardi mercredi jeudi la vendredi rek nga mën a commencer organiser te vendredi mooy le 24 looloo tax ñu ne daañ ko teggi ba loolu wees ñu jàpp le 29 waaye loolu nag dinañu permettre fii ak le 29 bu soobee yàlla dinañu waajal Macky dina xam ni. le di set du woon dara le 17 du woon dara le 29 bu soobee yàlla dinañu organiser manifestation te dinañ ko organiser ci anam goo xam ne naam ndakaaru am na solo trop te moom la ñuy concentrer suñu effort yu gën a bëri waaye dinañ ko organiser dans un pôle au sud dans un pôle au nord et peut-être dans d'autres pôles yoo xam ne ñu ngi koy liggéey daañu manifester de te dootul taxaw le 29 li may bëgg a wax Macky rek mooy na waajal parce que ñun ñi ñëpp waaye man damay wax sama tur man mii Ousmane Sonko le 29 ñaar moo mun a am Macky Sall dina ma jàpp wala mu faagagal ma parce que gannaaw yàlla gisuma lu ma mën a tere génn le 29 incha allah. bii dafa am nu mu demee woon ak li ñu ci doon def ñu nit ci stratégie waaye le 29 na pare ni dinañu jàpp walla ñu mu faagaagal bu jàppee ni moom moom réew mi ndax na boppam mane it loolu mooy li ñuy yéene la 29 mais ci diggante bi moo d'ordre bi ñuy lancé wax ko militants yi sympathisants yi ak sénégal yëpp mooy à tout moment nañu organiser des manifestation spontanées bu dee fii ñu toll nii dafa bëgg a instrumentaliser justice pour teg loxo ci ay nit condamner leen ci loo xam ne jaaduwut nañu organiser de manière spontanée guddi kom bëccëg te ma wax ko fii nag man maay jox man maa ko wax fii joxe ndigal wala stratégie gis nga manifestation bu sénégale yi génnee massivement te manifestation bi yàgg gisuma force de l'ordre bu ko mën a téye parce que ay nit kese lañu bu ñu xëyee suba ñu takkal leen seen yooyu ñu commencé quatre heures du matin ku ci egg cinq heures mënatoo sax dox bay daw na sénégalais yi organiser wu quartier par quartier commune par commune département par département ñu génn def manifestation massive ñaari fan buñ ko defee nguuru Macky Sall sax daanum xaj na ci loolu mooy wax ji fi mu toll nii kon le 29 manifestation tey jii la ñuy déposé bu si kanamee tuuti lettre baa ngi fii demandé wuñu autorisation lettre d'information la ñu def président Khalifa Sall mi moo ko signé ak man. ak yum mi dañ leen di informer jeex na takk quelque soit décision bu ñu jël dañuy manifester bu soobee yàlla loolu dama bëgg mu leer benn yoon waaye à côté de ça li ñuy wax gis nañu ñu ngi koy def Ziguinchor démb ba suba ba ngoon tàng na jër foofu ne leen nañu libéré Guy mari Sagna bi ñu jàpp bi ñu demee ba 18 xale yi fa yi ñu fa jàppoon Guy di leen seeti fan ñu jàpp ko moom dañoo barki ba démb dañoo dañoo toog ne xale yi bàyyi nañ leen dem leen xale yi ne leen du ñu génn fii tànk que Guy génnul ñu nag moom fii tànk que génnul noonu ñu koy defee Ziguinchor xale yi occupé laar rue te tey dañuy xëyaat occupé ko te man mii maa joxe ndigal gi bu ñuy jàpp man lañu ñu war a njëkk ñëw jàpp si noonu lañ koy defee feneen ak feneen Géejawaay Pikine Kër masaar Yëmbal Ndakaaru commune par commune nag di essayer daje fenn sax jaru ko na doon lu spontané commune par commune ba ñu xam lan la ci Macky Sall mën may wax nag ak ndaw ñi ndax dafa mel ni ndaw ndaw ñi ñoo nekk au cœur des de de tous les discours ndaw ñi laay waxal ñoo nekk au cœur de tous les discours dama ne fii ab laago cib xel new fii ay nit yu mature fi nekk jàng ba xam li ñu war a xam di suivre li xew ci àdduna bi yëpp bu ñu jàpp ndaw ñi ay innocent la ñu xam ne da am ñu leen di manipuler di leen joxoñ fi ñu daw déedéet loolu amul fii nañu bàyyi yooyu ñi ñu jàpp ñi ci bari ay borom kër lañu ay nit ñu jàng ba am ay diplôme lañu du ñu ay dof suñu duggee ci lii dañoo toog ba gis ni gis nañ ci seen bopp mooy gis nañ ci avenir du Sénégal loolu moo leen tax a dugg ci lii suñuy wax ak ñoom nañu xam ne ay responsable la ñuy waxal su ku jàpp ni dafa am ku sexal ndaw ñi suukar man de aw ma dërëm bu ma jox xale yi ñooy cotiser di ma jox far joxuma leen xaalis diguma leen dama ñëw ak sama discours ak sama programme pour le Sénégal ou pour l'Afrique ba ma koy door kenn xamuma ñu toog di wax di wax nit ñi di gis par benn benn ba tey mu toll nii mu toll nii kon bu ñu jàpp ni dañoo nekk ak ay nit ñoo xam ne ay irresponsable lañu wala ay innocent lañu nit ñu ñor xom xam àdduna xam réew mi ñoo nekk ci mbedd mi tey di xeex yéen ndaw ñi laay waxal xam ngeen seen intérêt fi mu nekk xam ngeen ku leen di essayer mbubboo pour jël ay milliards moom moom ak njabootam ñoom ñi di wax seen njaboot xam ngeen fu ñu nekk suñu nekkul école française wala école américaine ñi ngi bitim réew ñu nekkee bitim réew fa ñuy dëkk rek yéen su ngeen fa demoon da ngeen di jaaxle ñi leen di utiliser la fu ñu dajee seen i siège fan lay mujje ay dóorante ci séddoo xaalis man de aw ma paas moo leen jox te saa yu réew mi ne yëngatu sama kër ngeen di ñëw yendu añ bu ma leen jox sax aw ma ko te it duñ leen mës a trahir billaahi wallaahi lañ leen wax ak liy yéene si ñun ci réew mi amul dara luñ ci soxla luy suñu bopp amul salaire sax bëgguñu ko ci su dee dañu war a joxe suñu bakkan gii ngir réew gi baax définitivement jaral nañu ko kon ñi leen di wax naan leen buleen génn bu leen dem bu leen def lii na ngeen xam ni ñooñu ñaar moo mun a am soit xamuñu lu xew ci réew mi te loolu dina ma jaaxal walla conception bi ñu am parce que li ñu bugg a wax mooy bàyyi leen Macky Sall na dóore na tëjaate na reyaate ba yàlla jëlee ko boppam mu xëy rek yàlla def ko AVC mu dem yoonam waaye bu leen xeex. dafa mel ni loolu la ñu bëgg a wax ñun ko ñu ñu toog di ko seetaan kon yéen ndaw ñi ñun ormal nañu ñëpp te nañuy ormalante ndax bu ñu traité comme des irresponsables nous ne pas des irresponsables bu ñu xeex jaralee bis bu ne ñu xëy wax lu bon ci ñun bis bu ne ñu xëy pexeel ñu pour tëj ñu bis bu ne ñu xëy pexeel ñu pour faat suñu bakkan loolu du irresponsabilité bëgg réew mi la. kon bu leen kenn dévier ci xeex bi on a une chance historique de reprendre notre destin en main historique tey buñ ko bàyyi mu romb gis nga humanité ay cycle la bu cycle ba rombee rek balaa muy ñëwaat yàllaa xam kañ bañ ko ratee suñu début indépendance moo ñu topp ba tey ji kon yéen laay waxal intellectuel bi yow mi nekk diaspora yow mi nekk ci li bërëbu liggéeykaay bu leen kenn dévier ci lii nga xam ne xeex la pour defar suñu réew ba mu gën a baax réewu tubaab yi sax te mën nañ ko te nañ ko gëm ñeenteel bi may daanele ci toujours ci plan d'action bi mooy dañoo jàpp ni xeex bi dafa mel ni xeexu état bi la état parti état wala coalition état état bennoo Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi dama wax lu leer état coalition état ak Yewwi Askan Wi ndax it ci biir opposition Yewwi Askan Wi wéet na ci xeex bi de dañ ko wax nag xeex bi Yewwi Askan Wi moo koy xeex fi mu toll nii tembe ci biir opposition léeg-léeg sax nga gis les oppositions de Macky Sall par Macky Sall wala ñuy wax en tant que opposition ci Macky Sall suñu xëyee su bëggoon jot ci Yewwi Askan Wi la ñu nekk. xeex bii dafa jot nag ñu delloo askan wi baatam parce que bëri na ci askan wi koo xam ne ànd na ak ñun waaye du génn ci mbedd mi moo xam wérul moo xam mënu ko wala wala wala wala sax dafa ragal loolu day am waaye kooku war naa mën a bokk ci xeex bi ci yeneen anam moo tax ñu ne dafa am ay kuréelu politique yoo xam ne ñi ngi xëccoo waaye il faut que askan wi ñu dégg baatam nun nag dañoo bëgg a delloo baat askan wi nañu koy defee mooy dañu gëm ni képp koo xam ne ñu déglante bu baax de képp koo xam ne Macky mu yoree réew mi d'accord ci mooy ni mu jëlee suñu réew jaay ko tubaab bi ak naar bi ak chinois bi ak keneen ak keneen ni mu jëlee suñu alal réew ruset yi ci des séddoo ko moom ak ay mbokkam ci politique ak ci deret ni mu salfajee suñu démocratie ba kenn mënatul xam kan lan mooy politique ci Sénégal compétition électorale mënatul am ci Sénégal lu dul moom rek ay samp ndëndëm ñi ci des ñëpp mu écarté leen ni mu delloo suñu réew ci liberté ba tey ku ne d'accord maak moom boo noyee sax mu tëj la kaso sëñ Abdou Bara Dolly ma nga fa ñi ngi wax député yi mu tëj kenn xamul ñaata la député lebewoo imité am defoo dara ci jamono jooju député yi doon luxus xaalis ak ñu doon trafiqué visa ak yépp ñi ngi doxantu ndànk ci mbedd mi képp koo xam ne suñu li newoon suñu richesse ñun Sénégal mooy amuñoon or amuñoon jamaa amuñoon pétrole pourtant ñoo newoon réew mi gën a stable la ko andi mooy lan mooy lënkaloo gi sénégalais lënkaloo amul diine amul waaso amul xeet loolu yëpp ñu gis ni Macky Sall mu ngi koy compromettre parce que li mu bëgg mooy créer le chaos généralisé ba nit ñi di jël gànnaay di xeex seen biir comme li awoon Rwanda loolu loolu mooy programme mu Macky bi mu ñëwee ba léegi ci loolu la nekk ñi d'accordul ci loolu yëpp nag ak leneen ak leneen lu ma tuddul dañ leen dañ leen ñaan ngeen manifester ko nangeen koy manifester mooy dinañu jël ay fan yoo xam ne à partir de vingt heures vingt heures ñu bëgg koo door nag gannaaw suba mooy mercredi alxamis àllarba ñu bëgg ko door gannaaw suba mercredi à partir de vingt heures bu ne na nga jël sa benn casserole wala sa ndab goo yor taxaw sa balcon wala sa buntu kër wala foo mun a nekk ñu jël cinq minutes wala dix minutes vingt ba vingt heures dix fépp ci ndakaaru fépp ci Sénégal bëgg nañu sénégalais boo xam ne àndoog Macky Sall ni mu yoree réew mi pour moom mu jot message bi na nga génn sa balcon wala taxaw sa terrasse wala taxaw sa buntu kër nga jël sa say ndam daal koy dóor ñu tëgg ko li ñuy wax concert ba àdduna yëpp dégg ko xam nga loolu yomb na te kenn mënu koo tere te message mënu koo gën a fort képp koo xam ne da ngaa yor oto wara nga yor moto concert de klaxon mooy vingt ba vingt heures dix na nga bës à partir de vingt heures zéro ba vingt heures dix na nga bës sa klaxon mu jolli ñëpp dégg loolu forme xeex bu yomb la duñ ci jàpp nit duñ ci dóor nit duñ ci tëj kaso nit waaye message bu fort la boo xam ne parce que askan mooy atte message bu askan bi askan da ko war a mun a jàllale képp koo xam ne loolu ñor naan rek ak fu mu nekk ci Sénégal na ko def à partir de mercredi bi mooy premier bi chaque fois dinañ joxe beneen date buñ koy def ba àdduna gis ngeen message boobu moo gën a fort ci àdduna que leneen lu ñuy def ndax presse même presse internationale bi da koy couvrir ñëpp di ko dégg kon lii la ñu bëggoon wax ma tënk ko rapidement ci tubaab